Samba Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. alors nga bokk nag ci euh, kuréel bi nga xamante ne ëmb na conseillers municipaux euh, yi nekk fii euh, ci Sénégal lan moo waral taxawaayu collectif boobile. waaw balaa may ñoo damay nuyu l'ensemble des conseillers municipaux du Sénégal. di remercier aussi di leen remercier aussi opportunité bi yi ngeen ñu jox pour que ñu mun a en fait joxe suñu message ñu joxe suñu message pour que nit ñi dégg ñu par rapport ak. le statut de conseil municipal donc di wax rek ne en fait euh, li indi collectif bu juddu parce que dañu toog benn jur rek ñu gis président de la république recevoir l'association des adjoints de maires qui se sont en association il y a l'association des maire du Sénégal président recevoir leen yokkal leen seen indemnité de session pour les maires ñu yokk seen salaire ñu gis loolu ñun benn groupe de conseil au niveau des parcelles se sont discutés pour dire mais cela lii war nañ ci jóg parce que ñun en tant que conseil municipal en tant que conseil municipal yoo xam ne nekkuñu adjoint au maire nekkuñu région yi ñu contacté leen waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp aussi même loolu lañ doon xaar ñoom ñu jóg si lañ mettre en place le collectif des conseils municipaux di Sénégal des maires du Sénégal mu nekk ñaari entités yoo xam ne dañoo organisé wu donc ñun bi ñu gisee loolu ñu recevoir leen yokkal leen ay avantage ñi nga xam ne ñoom amoon nañ d'abord ay avantage ñu yokkal leen seen indemnité de session pour les adjoints au maire ñu yokkal leen seen donc pour les maires yokkal leen seen salaire ñun amuñu indemnité de session amul amuñu salaire amuñu lenn loo xamante ni ñu ne ah comme ñu jot nañoo am lële ñu yokkal leen pourquoi pas ñun au moins nga xam ne amaguñ dara li ñu dem bay xalaat ñële di leen defal dara war nañu mun a geesu ginnaaw te li ci gën a graaw aussi association de adjoints au maire bi ñuy dem buñ concerté woon ak les conseillers municipaux waxtaan ak ñoom buñ demee jël seen préoccupation mais bi soo gisee ñoom seen préoccupation bopp kese kese kese lañ ko lijjanti en tant que adjoint au maire ci noonu lañ concerté woo au niveau des parcelles benn groupe de conseillers réfléchir ci ne lii il faut ñu toog wax aussi pour nit ñi déglu ci lañ créé le collectif woo l'ensemble des conseils du Sénégal ñu te lañ mettre en place le collectif des conseils municipaux du Sénégal. très bien te tey lan la ñu war a def rek ngir gën na mën na valoriser tamit statut euh, conseils municipaux yi. waa xam nga en fait valorisation bi dafa baax te dafa am loo xamante ne dafa jàpp am loo xamante ne nii c'est avec le temps lañ koy def li nga xamante ne moom lañ tënk dans le collectif mooy l'indemnité de session bi nga xamante ne nii donc ñeneen euh, ñu. le décret est en cours boobu lañ bëgg ñu teel ko appliquer nu mu gën a gaawee wax ñu aussi le montant ñaata la parce que ñun xamuñ ko nee nañu rek le décret est en cours beneen bi mooy pour valoriser aussi statut yi euh, conseil municipaux yi am na ci commune yoo xamante ne bi ba léegi nii seen conseil municipaux amuñu carte professionnelle donc amul lenn loo leen mën a mandargale ñi ay conseil municipaux lañ donc loolu aussi mu nekk benn préoccupation boo xamante ne nii aussi si revendication yi la bokk te boobu dañ ko war a régler beneen bi nga xamante ne fi lañ nekk nag mooy après ñaari yooyu ñu ko réglé ba pare ñun dañuy continuer structuré wu organiser wu ñoom ni ñu demee ba amee seen association des adjoints au maire ñi am seen association des adjoints ñun noonu la ñuy au niveau national ba am aussi seen structure juridiquement reconnue sur le plan national pour que ñu mun a jël en charge suñu préoccupation alors yéen a ngi ñaawlu tamit euh, li jëm ci euh, ñu bañ a bàyyi xel euh, seen ay préoccupations yi nga xamante ne organisation yi ne war a taxawal ci kanamu njiitu réew mi daanaka def ko jëm ci indemnité wu maire yi ak avantage yi nga xamante ne ñoom jot nañu koo am waaw parce que loolu mais loolu ke ñun dañu amul sax ñun ñun dañu amul dara dañu amul dara ñee dañu am ba pare ñu yokkal leen ñun dañu amul dara loo xamante ne ni mun naa ne avantage la pour conseil municipal bi donc ñoom ñu leen yokkale ñun am nañ droit ne léegi ñun dañuy instaurer suñu euh, les indemnités de session au moins loolu mu nekk un premier pas donc ñoom je pense que amoon ba pare ñu yokkal leen te ñun amuñu dara léegi nag ñu bëgg ñoom li ñu jot li ñu leen yokkal kenn xañul leen kenn kenn kenn soxorewu leen ko daa en fait loolu loolu laa mu loolu laa laa bëgg wax quoi mais ñun aussi dañuy mettre en place loo xamante ne ni aussi dinañ ci gis suñu bopp. alors lu ëpp vingt six mille conseillers euh, municipaux yoo xamante ne ñoo ngi fépp euh, ci quatorze régions wu dëkk bi tey nan ngeen di def ngir mën a organiser wu. waaw en fait ñun euh, ñu ngi organiser wu depuis bi ñu lancé collectif bi rencontré nañ l'ensemble ñu ngi rencontré ay conseils yu nekk ci commune Sénégal yëpp mun naa ne ci nekk nii dafa mel ni ñi ñu yëkkati nii. conseil municipal Sénégal yi yëpp dañ ko doon xaar parce que biñ ko yëkkatee ñi nga xamante ni ñoo ñu contacté bokk ci mun naa ne ñu ngi toll ci deux cent communes yoo xamante ne ni am nañ fa pratiquement booy xool un point focal boo xamante ne ni mun na représenter le collectif actuellement ni à l'espace de quinze jours ñu ngi continuer di travailler di sensibiliser pour que ñëpp ñëw adhéré ci collectif yi te loolu liggéey boobu en fait gën gaaw du foofu daf ñuy jëmale à que ñu dem ci structuration mais di wax rek ne bi ñu lancé collectif bi on a mis en place benn benn comité benn comité ad hoc boo xam ne dañu tànn ay conseils municipaux dugal leen ci biir yoo xam ne ci différentes communes la ñoom ñu a jël en charge les préoccupations urgentes le temps que ñu organisé ba nga xamante ne ni dañuy structuré wu. Mhm. alors mu mel ni yéen a ëpp seen euh, collègues yi. mais du benn sax parce que on est plus de vingt six mille. boo calculé woon adjoint au maire ñaata la boo calculé woon nombre de maire yi cinquante cinquante cinq cent cinquante sept la donc loolu te ñun vingt six mille yooyu ñoom ñoo ñoom ñoo gën a jege seen population donc <laughs> combat boobu moom du loo xamante ne nii dinañ ko salaam laamee parce que vingt six mille ak euh, écart boobu dafa da da dafa doy je pense que bu ñu liggéey donc euh, war nañu mun a am suñu ñu ko mettre en euh, suñu condition de li ñuy liggéeyee parce que on demand pas de salaire ah parce que aussi ñu demande wuñu salaire li ñuy wax mooy condition yi nga xamante ni moom lañ teg ñële ñu teg ñu ko mm-hmm. parce que ñu ñoo bokk benn statut ñoom ay élu lañ ñun ay élu lañ alors mu mel ni tamit am na benn déséquilibre boo xamante ne yéen a koy wax jëm ci organe exécutif bi ak organe délibérant bi waaw mais ça déséquilibre boobu en fait c'est au niveau des communes parce que boo ñëwee ci biir commune bi par exemple le conseil municipal lan lay def voté budget voté bu section bi amee voté budget te budget bi ñuy voté l' exécutif moo ko koy soumettre ñun amuñ ci benn droit de regard boo xamante ne nii en fait dinañ ci proposé ba avant ñu defal budget bi boo ñëwee voté ngay def dañ lay proposé ordre du jour ordre jour bi en fait euh, <laughs> da ngay ñëw rek soumettre ci ordre du jour wala nga d'accord soit nga d'accord wala nga bañ a mais est-ce que au niveau du euh, du conseil municipal mënuñ am possibilité di proposer aussi ordre jour si point mais ñun on ne propose pas d'ordre du jour. su fekkee le maire daf proposer ordre jour mais xanaa war nañ mun am ñu ne au moins su amee tant de conseil yoo xamante ne ne point bii bëgg nañu ñu dugal ko ci ci ordre jour yi je pense que loi bi war nañu mun a may nga am benn quota de conseil municipaux yoo xam ne bu ñu amee benn ordre du jour ñu mën ko soumettre au maire pour ñu mën ko dugal. Hmm. yooyu ay jafe-jafe la yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci conseil municipal bi parce que en fait boo xoolee eh, au niveau des commission aussi da ngay liggéey sans moyen transport doo ko am transport sax mënoo ko am te des fois en intercommission da ngay nekk ba deux heures du di liggéey soo paree fekkee yow <laughs> fi nga dëkk dafa sori ak mairie bi tu seras obligé nga jël taxi nga dem saa yi amul en fait benn lan loo xamante ne nii jox nañu ko en tant que euh, moyen pour que ñu mën a effectuer euh, suñu mission comme ni ñu ko war a defee. alors mu mel ni loolu en fait ça se règle au niveau de l'exécutif local. alors mu mel ni euh, jot ngeen euh, déposé tamit ak benn lettre de demande d'audience ci fukki fan ak benn weeru ci weeru janvier bi ca palais de la république ndax loolee nan ngeen def ba organiser wu ba dem déposer lu ni mel. waaw li ñu njëkk a def mooy bi ñuy mettre en place collectif dañu. organiser benn point de presse pour sensibiliser ne il y a l'existence de ce collectif pour sensibiliser suñu yeneen naataango yi ne leen nañ ñëw adhérer dans ce collectif la pour que ñu mën a jël suñu préoccupation yi ñi nga xamante ni moom la ñu dund si noonu si lañ bindee benn demande d'audience au nom du collectif déposé ko à la présidence de la république ñu demande de waat beneen lettre d'information adressé ko à l'association des maires du Sénégal léegi nag audience bi nag ñu ngi toog di xaar te bëgg nañ vraiment le président de la République recevoir ce collectif là donc pour ñu mun a waxtaan bi mu gën a gaaw vraiment c'est loolu moom c'est vraiment urgent si rencontre boobu pour que ñu mun waxtaan ci li nga xamante ne mooy préoccupation urgente préoccupation urgente yi mun naa la ko wax sànq moo wax naa la ko sànq mooy ñaar la benn bi mooy suñu indemnité de session ñu appliqué ko parce que nee na ñu am na un décret bu nekk en cours xamuñu montant bi xamuñu fu mu toll donc te ñële en fait <laughs> seen yokk moom c'est déjà effectif voilà donc loolu moom je pense que du du luy xaar je pense que euh, loolu mën nañ ci taxaw ba dinañ ci taxaw maintenant par rapport ak collectif bi si reconnaissance u conseil municipal yi on est en train de demander en nos membres ñi nga xamante ni ñoo agréé commune boo xamante ni amoo carte professionnelle nañu ko wax ñu def ay démarches pour que maire yi jox leen seen carte professionnelle. Hmm. alors ndax am ngeen yaakaar ci demande bi nga xamante ne jot ngeen ko dugal ca palais de la république. waaw yaakaar rek il faut ñu am ko parce que bi ñu organiser point de presse bi c'était pour sensibiliser communiquer bi ñu paree je pense que ñu ngi euh, def ay démarches parce que ñu ngi dem ci médias yi di expliquer je pense que euh, demande de gage moom am naa yaakaar na balaa ñuy jublu ci lenn. je pense que président dinañu dégg donc wooñu ni mu wooyee jële donc pour ñu xool en fait lan la mun def pour ñu mhm. parce que aussi vingt six mille kenn du ko comparé ak cinquante sept mhm. cinq cent cinquante sept kenn du ko comparé aussi boo doon calculer nombre d'adjoints au maire yi ñu ngi ci ay deux mille et trois mille donc loolu moom je pense que rencontrer ce collectif là mhm. avec ces vingt six membre la je pense que loolu c'est important ñu ngi koy très bien alors ban message nga am euh, looy lancé euh, sa kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj bi daal mooy en fait ñu jéem a jàppale les conseils municipaux revaloriser leen li ñu leen di revaloriser mooy en fait conseils municipaux élu comme ni ñu élee les comme ni ñu président de la république suffrage universel direct lañ leen élire donc ñooñu. seen condition de travail war nañ ko xoolaat seen statut war nañ ko xoolaat seen gis-gis war nañ ko xoolaat parce que aussi dañ leen tànn si seen gox pour ñu représenter population bi dem di leen liggéeyal mais boo bëggee nekk conseil municipal amoo benn reconnaissance benn statut boo xamante ne ni li ngeen la ko xoolee je pense que loolu loolu ñu war a xoolaat la. très parce que aussi population bi donc ñoom ñooy tànn ñoo nekk ci conseil municipal bi boo xoolee population au niveau des parcelles par exemple on est une population de quatre cent cinquante à trois trois quatre quatre cent mille euh, quatre cent cinquante mille à cinq cent ñu tànn ci soixante seize mais dem leen toogal ñu ci conseil municipal bi donc kooku dafa am li nga xamante ne cëram la dañ ko ko jox parce que population moo ko ko jox ba pare. en tout cas Samba Ndiaye euh, jërëjëf may fàttali rek ne euh, bokk nga euh, ci kuréel gi ëmb conseil municipaux yi nekk fii ci Sénégal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi lay jaajëfal di la remercier ci interview bi di rafet lu vraiment opportunité bi nga ñu jox te di nuyu sama collègue conseil municipaux yi Sénégal yëpp di leen wax ne nañu gën a taxaw gën a nekk benn pour que aussi suñu condition de vie gën a mën a améliorer ñu mën a liggéeyal suñu askan maa ngi leen jaajëfal bu baax a baax maa ngi leen bu baax a baax maa